comprendre doo li ma wax lima li ma la kura du tala du kara du karla du fat sambo, man duma tala déggoo li ma la wax de kura dama fay ay millions yu bari indi ko sama jabar ku koy xool yenn bët yi wala nga koy jema a fawee ma kat boo yow xaar ba ma sam suma ma accès rek nga xam ne lépp la bu yoboo nga fay say bor wala nga sampolo barki salatul fate bu ma la rayul rayul la billahi wallahi laaj ma kura li ma capable ba jamu, accès ak billahi wallahi bama ma accès booy doom day amul de man dew ma ba kenn di doonu sama jabar déggoo li ma la wax xanaa barki alxuraanul karim ak ma tiim sama ndey ma gisoo ma sampolo tey gisoo ma fi laajal la ma def foofu noonu te maa ngi ñëw billaahi wallaahi bi ma agsi fu ma jëm nga xam ne lépp dëgg la xamoo li ma capable sax xamoo li ma capable kura du faat sàmm du du karla ay millions yu bari laa fay indi ko fi sama jabar kenn du ko fooyee billaahi wal kitaabi booy Sam bul fowee sa bopp bi bul fowee sa xel mi li nga def lépp xam nga ko li nga def xam nga ko say photo gi si man booy yow da nga dégg xanaa nga déggoo li ma la barki alxuraanul karim dinaa la rey ak ma tiim sa manday dinaa la rey billaahi wallaahi dinaa la rey. asalaamaaleykum mbokki àdduna mbokki Brésil mbokki Sénégal diaspora bi yëpp maa ngi leen di waaw kii ngeen gis ni mooy Assane Diouf moom lan rayee Brésil. waa ji ko rey nag moo nekk nii moo ko rey daggate ko dugal ko ci saako rey na ko rey bu ñaaw di ñaan yàlla ngeen dolli ko ñaan yàlla xare ko na ci barke yonent bi waa ji mbokk Sénégalam la moo ko rey ba pare daggate ko def ko ci saako